président Macky Sall rëdd na fi université boo xam ne Kaolack Fatick Kaffrine ñoo ko sëx ñun ñëpp commencé ko ci man ànd nañ ak moom bari gi dem dem ci université bi dama na bañ fa yeggee ku nekk as góor doomu Saalum sa yaram daw na ci liggéey bu yéeme noonu mais état noonu bu sellee noonu bu moderne mu def ci ñaata milliards wax na yéen ñëpp ngeen di ko dégg barki démb ne wax na ki nga xam ne loolu bi koy wax sama kanam na ca université ba ne entrepreneur bi may naa la ñaari weer ñetteeli weer bi maa ngi ñëw pour université boobu. loolu moom la njëkk a ci trente deux trois deux cent trente mu digoon région bu Kaolack président Macky Sall kon ñun waa Kaolack ñu ngi war di xaar seen ñaari weer mu ñëwaat fii pour ubbi université bu rëy boobu ci Saalum muy université Cheikh Ibrahima Niass président Macky ci deux cent trente deux milliards milliards yooyu mu ci tigoon liggéey na ci autoroute bi nga xam ne moom moo war a jóge Mbour jëm ci Kaolack boobu dégg mu ne liggéey bi ci bàllu fas yéene nañ balaa année bi di jeex ñu ubbi waat beneen pàcc mi nga xam ne daanaka yegg na caajaay wala romb na ko loolu ci deux cent yooyu gis ko liggéey président Macky Sall liñ tabax école ak ay lycée ci biir ci biir région bu Kaolack buñ ko xaymaa dem na ci soixante six mu gën ci deux cent trente deux président Macky Sall li aju ci mbiram mbay ñu liggéey ci vingt cinq milliards yoo xam ne def na ko ci njiwu def ko ci matériel mbay def ko ci engrais vingt cinq milliards def na ko ci région bu Kaolack président Macky loolu doyul commune bu Gandiaye ak Ngintineew fu nekk am na station boo xam ne liggéey ba daanaka pare na ñu ko liggéey ci deux cent trente deux milliards yooyu. santé santé président Macky Sall liggéey na ci hôpital Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ci mboolem matukaay ak matériel bi nga xam ne yokkaat nañ ko fa. poste de santé ak ambulance yi mu dugal ci biir région de Kaolack centre de santé yi mu tabax ci biir président Macky Sall moo waxoon ñu muy campagne waa Kaolack ne leen su ma gañee dinaa leen defal marché régional marché régional boobu mi ngi fii ci buntu Kaolack lancé nañ drapeau yi muy marché boo xamante ni président Macky Sall moo ko fa def loolu ci deux cent trente quatre vingt deux milliards de budget boobu weesu nañ sax waaye dafa moo arrêté loolu mooy li nga xam ne moo ko digee woon ca mu def ko ci deux cent trente deux milliards yooyu bi ñu ñëwaat Kaolack jàngal mboolem jafe-jafe yi nga xam ne dëkkal nañ ko ko ci région bu Kaolack bi mu ñëwee yemul foofu mu nattal la région bu Kaolack deux mille vingt quatre deux mille vingt six mille milliards. mille milliards yooyu nga xam ne moom la président Macky Sall nattalaat bu Kaolack nii lañ ko tënkee. li ci jiitu mooy ku nekk xam nga ne dégg nga ko démb sax ci Fatick mooy wax ci wàllu jeunesse ak ni ñu war a dimbalee jeunesse fii ci Kaolack ñii natt natt nañ ne xale yi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu Jakarta mën nañ sept mille wala lu ko ëpp candidat bii nga xam ne indi nga ko muy premier ministre Amadou Ba si nag Saalum daal di taxaw ba lépp li ngay xaar ko ci dig ko digal ñu ko daañu ko def daañu taxaw campagne ko daañu taxaw voté ko ko bëgg ñu am ko taxawaay bi nit ñi am pour gàttu la la gàttagal la dëgg dëgg nit ñi rëccu wu ñu ko parce que jëfal nga ci nit ñi askan wi loo xam ne mën nañ fee dundaat dund mënoon nañ fee dundaat benn chef de l'État waaye lu wéy li nga fi def duñ ko fi def kon nag ñu ngi lay sant di la gërëm di la félicité ci tournée bi nga xam ne def nga ko ci Siin ak Saalum jaar fi bu nekk population yi génn wan la seen cofeet ci yow waaye yow it nga wan leen sa yéene ak sa xol. ak sa taxawaay ci Sine ak Saalum wane nga ne ak Saalum parti ci yow ca maa wax ne li nga wax ba diggante bu fii ci Kaolack doomi Saalum wala Sine bu mu taxul nga futteeku dem liggéey boo waxee na gor ngay jàpp ne yow yaa ko xam sa bopp rek. parti bi nga xam ne moom lañ signé ak yow pacte à vie si Saalum pactam ak Macky Sall pacte à vie la ni ñaa ngi dund ni ñaa ngi ànd ak nokki incha allah l'orientation politique moom mooy ki nga xam ne moom moo